ci dugalaale ci boobule intervention mbir mu nu mel nag waral kii di Ousmane Sonko rek daal di yëkkati ay kàddu moom nag la mu daal di xam ne rek mooy mbir mu nu mel taqeewu ci laalewul ci ndax gisul document déggul document moom Ousmane Sonko daal di nay weddi bu baax mbir mu nu moom nag la mu daal di xam ne nee nañ nag mosul informé kàddu yu ñu mel ba tey rek kii bi di président Ousmane Sonko la mu daal di xamlewaat rek moo di ne jamono ji nañu concentré wu bu baax ci processus électoral bi kii di président Macky Sall amul benn yoon prérogative boo xamante ne rek war na ko war a mën a def wala mu koy tànn wala sax mu koy jéem a teg ku dul conseil constitutionnel jamono jii moom rek moo mën a buum mën a buumi jamono jii nag nee na ma ngay sàkku rek ci nit ñi képp ku foo foo xamante ne rek waaye nekk dafa nga daal di booloo rek nekk benn waaye nga def ko rek ngir turam. ak initiative yi nga xamante ne rek daal di nañ koy am moom nag la mu daal di xam ne rek moo di nag nañu jàpp bu baax fa ñu jàppoon Sonko président 2024 suñu élection 2024 focus 2024 kii di El Hadji Malick Ndiaye dafa mel ni rek mu ngi koy feel moom nag ñu ne xaajale ne rek ñu ngi koy xaajale mbir ko sànni ca xajjate ay sant bi nag lenn la ñor ñu def seen focus focus bi nga xamante ne rek def nañ ko ci béton bu dëgër mu nekk nag candidat wu kii di Ousmane Sonko moom nag la mu daal di xam ne jamono ji moo dina juróom ñaari parrainage yi nga rek ñoom lañ teg ci bopp conseil constitutionnel na nag ñu jël seen responsabilité kon nag instant bi lenn kese rek moom la moo leen deseel maanaam daal ñu fexe rek ba renforcer justice bi wala nag ñu fexe rek ba nasaxal justice bi ñaari mbir yooyu képp moo fi am di kàddu kii di El Hadji Malick mu daal ci yokk suñu élection 2024 jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen i info